mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax émission bu mag bi moo war a suñu déplacement muy ndaanaan ci biir goxam tey fan lañ jëm dañuy wutali bar ñi seeti ndaanaan bu mag boobu di Cora Fall tëggkat bu mag boobu moom la ñuy seeti tey ji waaye bala maa dal ci koraa damay dugg ci biir koñ bi jaxase ko xool lan la fa toogee ak lan la séq ak ñoom waa koñ bi topp leen ma topp leen ma sama mbokk internet yi ñu daal di dugg ci biir koñ bi rek xool lu fa xewee jaajëf. ko noppee gunu Chérif Aïdara Aïdara Karara yaa sutub yonent ndege buy Cheikh may sa Keita xiblu ni di ma seetaan bir naa biir ngi ni di wax dug ci bir koñ bi xool lan lañ toge xol lan lañ xamal Kora sama ndanan Topulen top len ma malik sama cameraman la ci andal ngeen setan ko gis ko nonu muy def ay image yu baax ayca ma top ma ñu euh, sama domo ko jur di ko wax Sine wad fay Sine wad fay paté ko jur paté ak man no bokku nday ak paate jóge na fi tey maa fi des maay seen kilifa maa fi des tey Kora li ma mën a wax ci moom mooy set la boo xam ne xàmmee na lépp loo xam ne war na ci digganteem ak ay waajuram ak ay kilifaam ñu ngi koy def ni mu gën a rafete ci anam bu mu doon nag ci yar ak teggin ci li nga xamee ne tey moom la taxawee moom ci jëmi boppam xam na boppam xam nay bokkam bëgg na boppam bëgg nay bokkam xam na li ko war itam ci li muy def ñu ciy góor góorlu kem kantanam kon damay wax ne su ngeen ñëwee e, di ma ko laaj moom e, nekk na koo xam ne e, ci fi mu jógee ak ci ñi ko jur booy dem ci sunu maam ya moom ci jëmmi boppam dem war na mën a tëgg war na mën a euh, xam li mu xam war na mën a man li mu man parce que forongarong la doon mooy koo xam ne démb ca demel ak tey bu ñu masee di woote ci penc mi bu ñu wootee ci penc mi ba kuy xarekat yi ñëw ñuy xas war a xeexi moom maamam day gàddu gorong ak ñaari pital di wax kuy xarekat yi ne leen sama goron bi danaa ko tëgg ci noppi koo xam ne bu daanoon a am ndam kon kooku borom fit la kon kooku day moo doon ka nga xam ne tey ji ci wàllu tëgg suy tëgg war naa tëgg mu ne lu tax mu ne démbam da cee boole woon fit ak jom mu ne daan ànd ak kuy xarekat ya mu ne daan dem ca xare ya daan fekkee looloo waral maamam juñ naan dégg mbam bu dem ba sungaañ nga mooy kuy soox moo doon dafa àndoon ak dameel ñu dem xeexi ba ñu demee xeexi alors li ma la wax léegi ñu ñu jàmm ko ci tànk ci pooj bi pooj bi ñu damm ko ñu tàgg ko ci fos maanaam sëf ko ci fos am gaal fële ci kaba ñu dogal ñu fa ab dog tey ji ay hectare la maa ko kon ñun euh, tëgg nii dañu ko donn dañu ko donn waaye ci fit dañu ko donn ci xam-xam dañ ko doon ci ci xam euh, li nga xamee ne tey bu nu ko waree alors mën a def ay xam-xam yu baree bari danañ ko mën a génn ci biir li ñuy tëgg parce que tëgg am xel la ay xalaat la ay nose la ay toftale la ay tegtale la muy ni ngay tëggeeg ni nga war a tëggee mu ne kon euh, am na ñoo xam ne xamuñu loolu dañuy ñëw rek di tëgg jël ndënd mi euh, jël galeen bi di tëgg mais ci biir alors tëgg mi sa xalaat bi nga xam ne mooy sam xel te war laa mën a teg ci yoonu li nga war a mën a nose bu dee bàkk ngay tëgg bu dee leneen ngay tëgg da ko war a mën a xalaat ba mu rafet boo ko tëggee nit ñi dégg ko loolu mooy am solo ci tëgg ma papa maam maam sax laay wax duma ne papa. muy kon mu leer ci ñiy seetaan que ne Kora bu tëggee war naa tëgg ndax da koo donn ci ay maamam euh, papa li nga wax rafet na lool waaye tey xam nga gone euh, doom ju ne euh, sët bu nekk ak maamam dañ leen di faral di tooñee naan dañ ko moom daa jaarul foofu ak man parce que sonal dafay nekk loo xam ne ñàkk yar ba ak ñàkk yaru mooy waral baatu sonal nit kon baat bi ku ko dégg euh, léeg-léeg nit ñi di ko wax waaye ki déggul wax bi mooy defe ne baax na waaye sonal nit baaxul li bon mooy noppal nit li bon li baax mooy noppal nit li baax mooy tëral nit li baax mooy sagal nit li baax mooy yëg nit li baax mooy joxul nit këddaam xam lu mu doon ceew xam loo doon ci moom xam li la ci moom taaru ñu taamu ñu jàjj macha allah macha allah tey looy ñaanal Kora fi nga toog nii ñu ngi lay laaj lan lan nga koy ñaanal tey ji koy ñaanal mu avancé lool ndax dama bëgg ëllëg mu bokk ci ñi nga xamee ne dinañu leen tudd bokk ci ñi nga xamee ne dañ naan ñoo fi man ci li ñuy def ci xam-xamu xereñ ci nañ koy defee. ca na mu ware ca na nga xamee ne alors loola mooy tax nit ñi xam ne xam na man na ko sax parce que ku ko gis ci mu ne ci ni muy doxalee ci wàllu tëgg ci ba mu ko commencé ba tey di nga xam ne kii kat ku ko dem euh, loo ko loo ko jox ci wàllu tëgg wala loo ko jox ci wàllu euh, euh, loo xam ne dafa jëm ci tëgg wala ci euh, muy animation maanaam ci mbooloo yu daje ñu war a wone ay man-man yoo xam ne ay nawle wala ay u daje na fa ah kenn du ko ca man te bu sàggunul moo cay man kon moom li mu man da ko donn waaye da ko doon daf ka doon waaye daf ka doon doon yomb na waaye doon kaa jafe kon nag loolu nga xamee ne moo moo moo moom la ëmb te nun ci nun la jóge muy sunu deret dañu nu euh, ngi wax rek ne leen euh, euh, ñàkk xam li mu waral bari na waaye li mu saf na ki ko ma ca xa ka xam bala ngeen a xam moom lu mu man lu nekk na ngeen ko sonde ba xam ci li mu man mu won leen ci loo xam ne xëj na day ku ku dut ku moom doo mën a wone ni mu war a wone li muy ware ci man-manu ni mu ko mënee ba nag loolu xam-xam la boo xam ne jàngat la boo xam ne xàmmee la boo xamee ni tam da ngay nekk koo xam ne loolu da ko man ci manin woo xam ne noonu lañ ko war a manee noonu lañ ko war a jëfe may ñaan nag yàlla guddal fanam yàlla may ko amin maam yow tamit ñu ngi lay ñaanal gudd fan bu wér nga yàgg fi gunge ñu bu baax a baax a baax yàlla na yàlla wéral cër yi yàggal la fi ñu ngi lay euh, gërëm di la jaajëfal bu baax a baax jaajëf kontaan na parce li ngeen def moo di de man maay ki nga xam ne tey su ngeen ñëwee dana am kontaante am kontaante ndax yéen it eh, li ngeen di def dafay wane ëllëg ne yéen eh, bëgg ngeen ñi nga xamee ne ay xale lañu te toll ci war nag ñu dégg leen ah, ngeen am eh, li nga xamee ne mooy appareil ah, nga xam ne mooy caméra ngeen ne nanu am cawartaay ak xëj na ëllëg nu mën a ànd ak moom nu liggéey waaye nag alors dinañu dem déplacé wu bàyyi suñu ite yëpp dem ba ca euh, dëkkam dem ba ci kër maamam ñëw laaj ko loolu yéen it ñu ngi leen di ñaanal ngeen am ci une bonne réussite une réussite totale boo xam ne yéen itam di ngeen ci am ndam. jërëjëf maam booy yàgg fi loolu te wér Malick ñu koy jaajëfal bu baax suñu maam jooju yàlla na yàlla wéral cër yi bàjjan du ndaw waa lan nga ñu mën a wax ci Kora. Kora waaw Kora moom boo ma laajee ci moom dinaa ci sawar tontu bu baax. ndax xale bu baax la xale bu yaru xale la mais xamna liko war ndax doon xale ta tere nga xam lu baax xam li la war Kora nak doon xale bu baax xale bu yaru xale bu respecté ay wajuram xale bu respecté ay magam ñun man bajjen rek lamay wax fu mu man dana man bajjen ñew akolaat ma dama nakaan bu ma doon woon sa bajjen dañ nan dang maa mu doon xale bu baax xale bu yaru xale bu man nag li muy def seet si ngeen xale bu am talent xale bu mën li muy def. ndeysaan seet si ngeen xale bu am xale bu mën li muy def ay kàddu bàjjenam la ni mu ko waxee lan ngay ñaanal Kora euh, ak fan nga bëgg mu yegg tey. xanaa rek fi ay moromam yegg fu kawe njortam fi mu bëgg mu yeggale yàlla yeggale ko fa maa ko koy ñaanal bu baax a baax a baax ndax xam naa ni dina fa yegg ndax xolam ak xalaatam yegg na foofu. te man it bàjjanam laa maa ngi ko koy ñaanal bu baax maa ngi koy ñaanal talent bu baax a baax a baax ñu koy jaajëfal bu baax comme ni niñ ko waxee bàjjanay baay moo ko ñaanal yàlla na ko ñaani dal dañuy waaxu rek ah Malick sama caméraman ñu daal di seeti ñeneen léegi sunu yi bopp la dama bokk na bokk ak moom askanu ngéwél ba pare li tax ma mën a wax ci moom ma jur ko ci ndey jur ko ci bàyyi nuy kër ngeewal yo xam ne no ni miir mo jaar suñu digënté mu juddoo si makanam, kanam màgg si bayam di artiste bu mag mu koy ñu wax sin wad fay ñu daan ko wax petit griot sin wad fay momu magam ji ñu awa jaaw fay mo ñuga mi génné àddina te jur momo momo momo jeen moy magam kon nga hamne ki limuy artis def ci artiste ni këru gu mag la juddoo ñoo xam ne ñi ay batterie la ñu mas di yor Guèye Seck mi ngeen daan dégg mu daan mu jëkk fee indi di tëgg fukki fukki ndënd ak ñaar képp kuy tëgg futi fukki ndënd ak ñaar ci moom nga ko jële mook ñun ñii ñoo bokk baayam mu yeewu gis baayam ci en tant que griot mu nekk artiste di way di tëgg mu donne ko ci baayam nag ba ni baayam seen waat dafay génne àddina moom yokkatul mu yor kër gi di dimbale ndeyam di dimbale ay frère nekk un tam grand tambour major ku nekk di ko sollicité orchestre yi sax dañ koy sollicité parce que moom il bat il bat bien le tam-tam nekkul koy caaxaan ah kon nag ku mel noonu soo leen àndeek moom yi ànd ak seen caméra bëgg ñu wax ci moom dafay yomb ndax li mu muy dund ak li muy liggéey fayowu ko lu mu man la te de ku mu ci ku mu ci morom mu mu ci ku mu ne nga nekk ceeg moom moo la ci man ci la yor soxnaam ci la yor ndeyam te mu ngi ni toog nu dëkkateek moom fii képp mu ànd ak moom jóge ban ñi géej ñëwati moom képp fii képp fenkoon muy fii nga ko fekk ci gaar bi kon nun sawar nañoo wax ci moom li muy liggéey lu mu man la fayowu ko da koo donn ci ndey donn ko ci bàyyi macha allah tubaar fa kàlla macha allah te baayam dafee liggéey lu mel noonu jaar ko ci orchestre ba ni mu génne àddina muy seen waat dafay kon yéen a ngi gànd ak ànd ak un grand artiste boo xam ne noonu ban ñi gépp ko xam boo ko fiy laajte ku ko gis xam ne Kora mi xam nañu ko te li muy liggéey xam nañu ko c'est un grand artiste trois fakal macha allah yal na ko yàlla jëme kanam yal na ko yàlla dimbali ba li muy liggéey lépp luñ ci am ci teraanga muy nekk chance du nekk chance am kese mais dafay nekk mérite am yéen ñi ñëw tam ànd ak moom di ko fekk ci fii mu dëkk nag maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant parce que soo leen yéemul nit defal ko publicité pour ko ñëpp xam ko ah, vraiment yéen waa te xam nuñ koy xeeti ah tubaab kàlla kenn mënu leen ñu baax ngeen kon boo leen lancé ku mel ni suñu artiste bi di sunu doom dañu ciy sawar kontaan si moom bëgg nañu si moom ñu ngi koy ñaan yàlla liy dëgmal mu dëgmal si dëg dëgmal ko si kanamam yal na ko yegg yeggale ak jàmm salaam te yàlla ma ko si une bonne réussite kontaan nañu bu baax a baax koo ko fi laaj lii ma la wax la lay wax ñëpp ko xam. toir vocal macha allah. aha macha allah kàddu rafet na suñu papa ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax papa Maguette sàmm ñu koy jaajëfal bu baax a baax kàddu yi rafet na ñu lay ñaanal gudd fan rek. amiin amiin bi jaay na sa yeneen nu mbokk ak yéen. Mhm. parce que vous êtes tous des jeunes te li ngeen bëgg mooy am promotion yal na leen yàlla may promotion ci li ngeen di liggéey waaye ci ci gàttal daal koraa mi ngeen àndal mu sant fay seen wàdd fay jur ko ak jaara ñang kontaan nañ ci moom c'est un grand artiste yal na ko yàlla jàppale bu baax a baax mu macha allah yal na yàlla guddal fanam parce qu'il est très jeune te dafa war a jëm kanam war a am une bonne promotion yal na ko yàlla defal di jaay Moustapha Salou Sam ñëpp kontaan nañ ci moom. kontaan nañ ci moom kilifaam moo ko ñaanal yal na yàlla nangu ñaan yi ah yàlla yàggal ko fi moom tamit suñu papa ji guddal fanam ñu seeti keneen rek Malick sama xarit. ma toog ak sama xarit ah sama waa ji n naa maa ngi lay fay. tur bi naka la. tur bi Ndiame la. ñaambe dégg naa yaay daggate bari ñi de. waaw moom la dama bari ñu wax. na ah. waa bari ñu ñoo ma sekki ci biir jël ma bëgg ma. Uh-huh. loolu rafet na ñu am suñu émission tey muy ndaanaan ci biir goxam ñu ciy dalal Cora Faye ah ñu lay laaj tey lan nga xam ci Cora Faye. ah bu ngeen ñëwee ci Cora ñëw ngeen ci ndaanaan ndax kooku doomu ndaanaan la kuy sa papa ñu ne Sini Wade Faye loolu rek doy na misaal ci bari ñi Cora moom ñëpp xam nañ ko waaw ci mbaaxam ci tabeem ci yaroom. Nakora koora barki dem rek def ay ndogu bar ñi gep ma bu génne ñëpp kora fay la ñuy wax ndax man mi dama way ci kasatam waaw xana neex man la ci njëkk way waaw ma nekk xalé bu ndaw moom tamu nekk ñu nekk ay jeune di ànd di dem kora lu mu xew la man la kay tuddé man tamit ma ñew fekk sék ci na xamna né ne lam du yëngatu waaw lool rek la tay ji boko don dolé wala lo xam tane dang ko koy xélal mom suñu ndaanaanu tay bi lan lay don si manam si musique am wala. ci limi liggey ci euh, entourage am ci koñam ak ci li nga xam ci lay yëngatu. waw Kora mom ñepp xam nañ ne maninam barke démb Ndiaye rek sama jabar mi muy xew Kora mo ñew def fa loo xam ba tay koñ ba mu ngi fay teggeegu fa waw mu wacc suñu koñ ba koñ ba wacc waw Kora mom xam lan la kay ñaanal fan wu gudd ak yaram musique bi art bi muy sentu limu bëgg ci art bi ya yalla defal si barke Cheikh na Sessad bu rek la kay ñaanal amin ñu ngi koy naan amin ci barke cheikh na cheikh sadbu ah suñu wasila bobu ñu ngi lay jaajeufal merci beaucoup jërëjëf ñu dem séti keneen malik ci sama bi ndaanaan ah kora fay sama ndaanaan bobu top ma rek ñu séti keneen ah waaw cum xale bi yow nice nga le nu demé ni ça ba yam gëna nice tur bi naka la maytu mbaytu loo xam ci suñu ndaanaanu say bi kora fay waaw kora xam nga muy suñu ndaanaan nek bar ñi di def lu nice vraiment ko am sa programme mu la ba mu neex def ambiance ba mu neex baax bëgg doom aadama lool da la xam ci mom tay boko ko doon yok wala nga koy ñaanal lan lay doon ah diko wax rek mu gor gor lu tax xamni bu mu ngi ci yoon yalla na yalla jappalé yalla tek ci yoon dal lool la laa koy ñaanal ma ngi lay jaajëfal ok merci beaucoup Kora kan Kora sama càmmiñ ju baax Kora mi sama càmmiñ la sama jëkkër la ma koy ñaanal ak yàlla ko yàlla bàyyi bàyyi ko fi ak soxna bàyyi ko ak ak waajuram bàyyi ko fi ak njabootam yàlla na ko yàlla fay Kora lan la seq ak waa koñ la bu ne Kora dafa seq ak waa bi jàmm ak salaam zéro faute li ma koy ñaanalaa si kaw ci kanam te yàlla na ko fi bàyyi te bët ak làmmiñ yàlla na ko teggeeku ci kawam man maa ngi tudd Bintala maa ngi dëkk a koñam waaw Bintalaam ñu ngi lay jaajëfal ah di kontaan bu baax a baax ci yow <laughs> waaw <laughs> yow kii daa kontaan yow ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Binta Lam Malick nga topp ma ma seeti Sidi papa xam nga ki ñuy wax Kora Faye. waa xam naa ko. loo ma mën a wax ci moom. bon xam naa ko parce que papa laa ci moom bon j'ai avec son père. papaam dafa génn àdduna maa ngi koy ñaanal yàlla fa mu ne yàlla na ko gënal fi mu jógee xale bu baax la ku yaru am na cër daal jox na ma cër jox na waa kuñ bi cër euh, gone gu baax la daal en quelque sorte waaw loolu laa mën a wax gone gu baax la waaw. gone gu baax la tey boo ko doon dolli moom sa doom la comme ni nga ko waxee ah yan kàddu lay doon papa. Euh, mu gën bëgg doomu aadama muy dëkkal yokk li mu leen defaloon mu dolli ko quoi. waaw li muy def ci lu baax mu yokk ko parce que gis naa ko muy def ay action de bienfaisance waaw bàyyi ma ko dàq li muy def moom mën na tëgg artiste la mais papaam c'était un grand chanteur waaw papam daana accompagner Ndiouga Dieng xam moom ci famille boobu la bokk parce que jabaru Ndiouga Dieng bàjjan la ci moom alaaj Ndiouga Dieng bi génn àdduna jabaram bàjjan la ci Kora donc euh, ci famille artiste la juddoo quoi yàlla mën na def mu percer mais il faut mu góor góorgóorlu ci li muy. xam ne fi mu ne nii mën nañu sori ku mel ni ay Youssou Ndour ay Ismaël Lo dañu xaw a modeste quoi waaw modestie boobu bu nekkee ci moom mën na rëcc quoi même bu xoolee ci ki muy liggéeyal muy Kumba la mën na dem parce que c'est une femme modeste. artiste bu mag la bu xolé ci koku rek dem bu gor lo na dem quoi mais il faut mu modeste aduna lepp lo am rek modeste mo la kay jox quoi. papa ñing lay jaajeufal non man yow man yow lay jaajeufal parce que yaay interview yaay ñew pour di wax sama dom ma sani sama cadeau kontaan naa xam nga dangeen ma bet sino kon ma dajal lu gëna reey limako waxal quoi xam nga waaw mais amon na papa ju bax dal waaw bu topé tanku papa na percer quoi waaw yalla nako yalla la xal cat yow aussi merci hein c'est pas facile mais yal na leen yàlla jàppale liggéey bu important ngeen di def parce que yéen a ngi wër au moins di jéem a dom doomu aadama yi waaw yal na la yalla jàppale uh-huh. amin ñukoy ñukoy ñu suñu papa ji ko ñaanal gudd fan ak wër waxna na yu rafet ma da nga may top rek guma de ci sama daana fi ñu nek moy fan fi moy garage do yu bu barñe bi tey ñu am suñu ndaanaan ci biir goxam muy Cora Faye lan nga xamal Cora yi. Ah, bu ñuy wax si moom soxna si duñ fi jóg de xanaa ñu wax tuuti rek bàyyi tuuti Cora suñum Cora la man dama ne dama ko jàpp si benn côté kane moom barñi lay tiitaroo barñi la am barñi lay sagoo di wax ne fu mu bëgg a yegg barñee ko fay yóbbu xam nga rek loolu dafa doy Cora nit ku baax nit ku diiñ ndaw bu am xel la. ndaw bu xam li muy def ndaw bu xam fu muy teg tànkam xam fi mu jëm nag te man jàpp naa ne dina yegg comme mënuñu ko kii nañ ko ñaanal rek yàlla fu mu bëgg a yegg yàlla yeggale ko fa ñu dem ba mu am lu weesu suñu njortu man de bu ma koy ñaanal dama nakaan yàlla nañ dem ba duñ jot si yow nit boo koy ñaanal loolu nga koy wax man loolu laa koy ñaanal ñu leen di gërëm yéen tam waa tele bi yëg gi ngeen yëg Kora ba wàcc fii si Bargny li ngeen ko defal nii xam naa xamoo leen ko mais sac bu rëy la tiitër bu rëy la si ñun mu ngi leen di ñaanal bu baax. Alpha xam nga ku ñuy wax Kora euh, Faye. Kora waaw xam naa ko xam naa si moom lu bari yàlla. loo ma mën a wax ci moom. ah ma si moom bay bay na lool lool lu ko xam te nii maanaam dafa nekk ko xam ne ku ñàkk ñaan la xale bu baax bu yaru bu set ay loxo. si ku mal lu muy def ci ci ci yemal si lool loolu boo ko ooyee disponible pour defal loo bëgg rek ak noo ko man mi wax yoo xam naa si dara ndax tout récemment rek ba may jabar si dernier moment la ko oo téléphone si jour ji laa ko allo Kora dama am nangam nangam laa may pare sax sama kër fa nekk lu juillet 16h ba 21h 23h si na si lu lu daal manam li xam ci mom mi ngi wax fi du jee parce que aussi fi la juddoo fi la magé té gën jéppee ko xam li am solo ci doomu aadama nga juddu ci gox ba magga fa té gën jéppu la ci côté fànn bép def art imu def imu def yombul art yombul ne ko nek xam na art yombul ci moom mom mi def di génné di jouer fu né ci aduna tout international kon donc aussi ñu gën ñaanal nak yalla yalla defal cat Kora nan la mel ak euh, waa koñam tey boo ma doon wax. la daal ku la aussi li euh, important li moom lépp mu doon faale fa ñu toppatoo ñu la mais ak lu mu mënti rek jox leen jox leen seen ñu teel seen bopp mais bu la won bu leen wanee benn affaire bi rek ñu bu leen faale la waaw ban ñu moom loolu suñu jikko la moom te moom xam naa ne faale waa bari ñi Ah, parce que outa falé bari moom boté wootee ñëpp ko uyusi ama fi dama ama fi mom mu nga ouvrir si affaire mu luyee 16 mais nit ñi mënu luyee dé mën nga luyee 16 bo xewlé waye doom aadama kenn du ko luyee tey bu ton doli mom ko ra lan lay do ak liñ koy ñaanal. waaw mu ñi rek te góorgóorlu te bañu diglu kum lay wax légui la arbi yombul arbi ñu nekk nit mom mom xayla yombul ici euh jëm si yàlla papaam ku baaxoon la. ba ma bëggee xam sax boobu ba may xam papa boobu xamu ko woon dafa am nitu aar la woon te ñëpp la amuloon jàmm bañ fii ba yàlla wala ba mu wuñu ginnaaw te xam naa lu baax la rafet lu mën def noonu xam naa aussi fay rek tànkam waaw moom ak moom ak ak rakam encore li ma gën a si moom encore mu uuf ay rakam foo gis parce que fii bañ na nga nit créé benn bàyyi ay rakam si ginnaaw mu jiitu mais moom foo gis foo ko mënta gis mën affaire rakam ak ay soppeem mosu ànd moom sel ah man boog rarement laa gis moo ànd moom kese déedéet barewul bu ma ko xamee ba léegi nii waaw souvent mu ngi am mu ngi affameem aussi képp képp koo xam ne xaj na si moom rek mu mu ngi lay xajoo waaw moom xam naa moom. ndeysaan rafet na comme niñ koy faral di waxee nit mbokkam waaye nit dëkkandoowam ndax lan moo tax sa bis moo tax bu bis jotee ñu mën laa seedeel lu baax Alpha ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Alpha ñu koy jaajëfal bu baax a baax xam nga liy wax ji nag mooy damay daal di waaxu toog ak sama ndaanaan bi nga xam ne moo waral coow li tey Kora Faye sama ndaanaan bi nga xam te ne goxam laa ko fekk tey Kora Faye laaj ko samay kàddu ah, waaye du ko xaaree foofu de ci yaayam laaj Kora waaw ah, Kora sama góor sama góor bu baax la si man loo ñu mën a wax tey ci moom ah Kora dama mën a wax si moom bëri na nekk na xale bu am jom xale bu baax xale bu ay ah, waajuram gërëm muy noonu daal Kora moom mënuma wax si moom parce que su may wax mooy loolu daal sank dama taxaw mune ne ma xoolal sama jigeen ngi dama ka bëgg ba may ko ñëkke ah muy lu rafet la ana yéen kàddu ngay tek ci suñu micro waaw Kora dafa baax rek mom bi mu waxee de man lay may ñëkke yaayam mo na ko dindi mais famem kenn dindu ko ñun ñëpp dañ ci and mu nekk lu ma rafetlu vraiment muy non daal nday dafa timit dañ koy comprendre allah yi rafet na ñu lay jaajeufal bu baaxa ba ah ok merci. ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaye ndaanaan ci biir goxam émission bi la ñuy ànd noonu muy continuer ci suñu ndaanaan bi lañuy jëm mu wan ñu mëninam ak ay feemam Malick barkal nit ki li nga mën rek lol ngay woné ndanan baangi nonu noonu muy Kora sama ndaanaan sama waa ji nuyu la. di wax ni vraiment tay amna contenté kontante ñu ñew bir ñewal fi ci ñi fekk si Kora fay ngir ngir waxtaan ak mom ci li muy def ma kontaan ci loolu nak di balu ñepp ax di ñaan yalla wër koor yi nga xamné ni jóge na ci dañ ci génn di ñaan yalla lepp lu ci way ñaan rek wala lu ci way def rek ñaanal na ko suñu borom gën nag xam nga tey da ngeen def émission boo xam ne nii dañ mooy artiste bi ak gorom waaw ndaanaam ci ndaanaam ci biir gorom tey nag ngeen ñëw fi vraiment ma bëgg ci lool nag ma bëgg ci lool Kora nag ku ko xamul ku ne dégg nga ko Kora la juddoo ci ngéwël juddoo ci aar yàgg a def yaa yaa yaakaar naa ni juddoo ci famille boo xam ne dafa juddu rek fekk famille bi maanaam ñu dundu ci ngéwël xam nga kooraa kookoy kooraa quoi nekk ma nekk ci aar nag di ci bay sama waar yaa may dégg yàlla dogal na nag ma nekk xale teel ci am nag tur vraiment ma koy sant suñu borom ne am na loo xam ne nii du doon nit ki suñu mburu borom lay doon xam nga yàlla dogal ma jug rek nag nekk ci orchestre boo xam ne ni mën naa wax ne ni presque samay papa ak samay kilifaak ñoo xam ne ni ñoo moom ak fuuf ma nekk ndoog ñoom doon xale vraiment ñu may teete ni ma woon ni ma war def loolu rek doy na sant yàlla xam nga kon donc mu ngi noonu daal. man nag man nag moom yàlla dafa dogal ne nag tëggum sabar moom dama ci teel a dugg mën naa wax ni moom ma yaaxal sama jàng moo ma yaaxal lépp aussi tamit li taxoon tamit ma dugg ci tamit rëccuwuma ko ne vraiment euh, yàlla nga ma ciy suturaal bu baax xam nga. mu tax nag ma yàq sama jàng man bëgguma lenn lu dul tëgg sabar bëgguma lenn lu dul aar waaw te dama gëm ne ni lépp lu ci sama moroom am ci kàntanu yàlla sunu borom dina ma ko defal ne am naa gëm-gëm bi te chaque jour loolu laa gëm te chaque jour xam naa ne loolu day ñëw ci man vraiment euh, may remercier nag ki nga xam ne ni tey peut-être tey tëggum sabar moom lépp lu ma ci man rek duma ko fàtte bu xam nga def na ci man lu bari muy Modou Diop Faye xam nga sànq dem ngeen fa sama kër maam kër Alaaji Ama jox fay vraiment c'est la famille nag sama deret la mais tey lu bari tey lu ma ci man ñoom ñoo ma ko jàngal parce que xam nga tamit di woy sama baay rek wala que ni damaa judd ci ngéwal rek taxul nga man tëggum sabar am na géwal yoo xam ne ni ay géwal pire lan seen yaay géwal seen baay géwal la tamanu noo tëgg sabar aar bi mënuñu ci lenn kon donc am na loo xam ne tamit nag bu nekkee ci yow d'abord nekk na ci yow mais da ngay dem tamit jàngiwaat ko xam looloo lay permettre tey nga mën a nekk tey ci orchestre di mën a liggéey ak orchestre yi xam nga man di dem di ñëw vraiment yàlla di la suturaal parce que aar moom boo ci nekkee bëgg ka kal tey ci tëggum sabar kase xam nga yaakaar naa ni sa xam-xam sa du bari te sa tànk maanaam fi nga koy dëgg du bari mais ne damay dund aar rek damay yem ci benn tëggu ngénte wala tëgg kii non doo dem vraiment muy profité di lancer waale sama mbokki géwël yi di leen wax ne tamit li ma wax ne nañ ci bàyyi xel bu baax nit moom boo liggéeyul maçon liggéeyoo téyër liggéeyoo lenn ne tëggum sabar geeg yi da nga ciy fexe gëstu xam-xam waaw fexe see dem liggéey ci musique wala nga nekk ci groupe bale xam nga loolu maanaam dina la jàllale quoi mais man li ma li ma contre mooy que ni tëggkatu sabar kese laa ci tëggu ngénte laa yem wala que ni kii noon loolu moom loolu moom man gisuma loolu quoi vraiment. dégg naa bëri na nag mais nga wax ñu ci tuuti rek. waaw car nag. man moom artistes ma liggéeyal bari na xam nga premièrement muy remercier euh, sama yaay sax laay wax parce que moom moom moom moom moo ma jëlal boppam ne ma yaay sama doom ku ci mel ni ku mbagaaw la sax yow xam nga ci dara yaakaar naa ni bokkoon nga defe naa ci ci ci fans waa club Gawlo vraiment ñu fa daan gisee nga doon sama xarit vraiment moom it yaakaar naa ni group bi ma njëkk a nekk ci groupe la xam nga te boobu ba léegi dara ñaawul ñuy liggéey su ma xewlee mu taxaw si vraiment lépp lu mu xew la ñu nit ñu taxaw si nu muy taxawoo ñu nit noonu lañ koy taxawoo mais yaakaar naa day am bés ñu nit ñu woo suñuy nit woo leen pour ñu ñëw ñun nag bu amee bés it moom it noonu lay def te man liggéey man loolu laa ci xam rawatina tamit mooy ànd ak tamit sama rakk Momo Momo kooku moom sama rakk la mais sama deret la ne yaayam Awa Diawa Faye ak sam papa Siniwaat di Faye ñoo bokk dara damay woo na ma waa ko noo gis naa nga maanaam xeebu ma daal moom may profito tamit di geureum di geureum tamit nag sama rak yit fal ndjay fay momit way kat la xam nga momit makoy ñaanal tamit xam nga amna ay affaire muy waajal ñukoy ñaanal yalla ci dugg ak vraiment ba ba ba lépp lu mu ci sentu rek suñu borom defal ko mom tamit rak tamit ju ma la bo xoolee sama clip yek sama single yi mom la ci andal vraiment di geureum ñom Pama ñima ma nak bari na man presque man artiste mom ñom ñoom Yves maam Ngor yaakaar naa ni artistes yëpp su may lim fii laay fanaan xam nga kon donc mooy loolu. dëgg la muy lu rafet lool waaye laaj Kora lan la sekk ak euh, artistes yi nga xam ne moom la moom la bi ñi nga xam ne ñoom nga bokkal langue gi. seen relation lan la. waaw surtout nag si sama génération surtout sama génération euh, ñoom ñëpp nag jàmm ak salaam laa seq ak ñoom boo xoolee sax fan yii nii. organiser nañ ben ben ben ben benn groupe bo xam ne ni dañoo def association des jeunes guerriers du Sénégal sunu mag Lamine nar jité ko vraiment percussionniste yop nek ci yagul dara rek tournant fi bar ñu ñom ñep ñew xam nga rawati na Thioung Bass Thioung sama xarit la sama doomu nday la ñom khadim tan xam nga ñoom ñëpp vraiment ku ci nekk jàmm laa séq ak yow ñoom daam seen papa Ndiaye coppet barki dem moo Ndiaye bi muy def marmé di kër daf daf ma woo ne ma lépp loo jàpp bàyyi ko nga ñëw sama rakk bopp nga vraiment moom it ñu daje tamit Paris papa Ndiaye coppet ñu daje Paris xam nga ma def sama contrant ba pare mu téema ne ma doo ñibbi parce que dama fay am ay date foog nga jàppale ma xam nga ku baax mooy def loolu vraiment moom it maa ngi koy remercier sama mag la sama xarit la donc daal man daal ñoom ñëpp daal laa amal jàmm quoi ñoom magay sek vraiment aw ma cee kenn xaar ma yàlla te te nag dan may ñëwoon yàggul dara sama anniversaire am na artistes yoo xam ne billaay wallaay bu may def sama anniversaire sax du ma yëkkat sama téléphone woo leen ñoom Jami Gueye ñoom Ndeye Gueye Fatou Waré su ma limee damay juum dañ koy yëg rek ñëw parce que boo naan danaa ñëw Kora ñun war noo toog nga ñuy yëgal vraiment kon donc maa ngi leen di ñaanal ku ci nekk aar bi nga nekk yaa xam ni nga ci bëgg yàlla na ko suñu borom defal ku ma mën ci tànki kenn man moom xam nga man ci ci yan tànk laa nekk samay tànk bopp waaw man moom man moom wax dëgg yàlla man moom ni ma yàlla dimbalee mooy que ni man moom chaque jour si sama bopp rek laay nekk liggéenti sama bopp li ma war a def ma koy def def naa ay single nag vraiment yàlla defal ma ci succès ma clip ko ñi ñi bëgg ko xam nga xale yi fii bari ñi pour Sénégal vraiment man moo tax. am na ñoo xam ne ni sax léeg-léeg da ngay def ay émission ñu foog ni ni peut-être que ni da ngay wut buzz wala nii mais ñun am nañ buzz après parce que am buzz mënta weesu que ni kii mooy tëggal Coumba Gawlo amul buzz bu gën a rëy loolu wala kii mooy tëggal Momo wala kii mooy tëggal keneen ak keneen asaatuma laa nag yow nga nekk sa yëfu bopp fexe ba ñëpp xam na dëkk bi nga dëkk di la tiitaroo xam nga rawatina Bargny rawatina Bargny man moom Bargny moom man man sax bañ naa ko ba su ma toogee ci télé ñeneen ñi buñ mooyoo da naan yow daal Kora yow daal bari ñu daal nga nekkal télé yi mais nag c'est parce que fii laa dëkk moo tax mënuma leen a jaay lenn nit fi nga juddoo ñu ngi géntee la fa mënoo faa jaay affaire lu wax na nag single yaa ngi ñëw xam ñu ngi tëju rek di liggéey di def ndànk-ndànk xam nga dañoo am xam ne ni peut-être dañuy teg ci yoon kon donc affaire yaa ngi ñëw nanu Sénégal xaar rek yàggatu bientôt barke rasulaay rek ñu dégg-dégg na man moom xam nga tey waxkat yu bari sax dañuy mën a wax mais mais duñ mën a tëgg sabar amunu création wax dëgg yàlla am na si ñoo xam ne tey boo leen joxoon sabar mën ñu la cey génnal benn nopp yaa may dégg mais ñun yàlla suturaal nañu lépp ñu bëgg a def ci sabar ak lu mënti doon dañu koy def kon donc loolu doy na sant yàlla tey jii bu ma la doon laaj sabar gii nga tiim nii jàkkaarloog moom mooy ban loo may wax parce que man xaw ma ci lu bari lii nag mooy cool lii moom mooy cool xam nga mooy cool ci top moy tungul imam na sama dom ji yor ni waaw ya, ci mbëmbëng xam sabari sax da ngeen ñew sa fekk fekk gaay yi for sabari wa ya, mbëmbëng tungu nag sabari yaangi ni wah wa ander yaangi ci bir nak parce que gennu lu sabari bari dañ ko waxtane rek eh. wa fas yéene yaa ma xam wa may gëreem nak sank nak sama jigen bu fi togon sank nga xam nga eh, léeg damay wax ben baat bo xam ni mom sax daf ma tere mais xam nga nit moom dina mel ci yow loo xam na ni maanaam doo ko tëkkaaleeg lenn day wax ma ne ko man tëkkaale maa gën tëkk man man bu ma ñëpp bàyyi woon yow nga téye ma rek neex na muy Ndeye Gueye Pouye ma koy ñaanal yàlla di gërëm jëkkëram tamit sama jigéen la man daal su ma limee daal damay juum vraiment di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp nag. les projets de Kora. waaw projet yi nag ñu ngi ci parce que xam nga tey booy liggéey tey ci groupe xam yalla dogal tay nga nek ci level am ñu ngi wajal ay tournée mais ay tournée yo xamné ay tournée Coumba bagal la quoi vraiment xam nga mom du gëreum mom it yaakaar naa ne moom foofu ma dëgg sama sama tànk ci àdduna rek moom it loxaam ngi ci vraiment donc ñu ngi waajal tournée ñun tamit ak suñu yëfi bopp ne groupe africain sabar nit moom yëfi jàmbur neex na lool waaye nag sa yëf dara dàqu ko vraiment ma ànd ak tamit na sama rak am groupe barki dem mondial lan def sunu anniversaire ñëpp di ko coow vraiment donc ñu ngi ci projet yi di waajal ay taanibeer yu ñu war a tëgg xam nga di waajal ay tournée mën nañoo dem Gambie ay affaires yu bari daal ñaan yàlla rek suñu borom sutu ñu lépp xam nga ban dem ceeg jàmm ne nag ay ndaw lan ay ndaw lan dara dara kii lu ñu quoi mën nanoo war war nanoo war a mën a war a am lu ne ci àdduna ci lu ñuy def comme niñ koy faral di waxe borom karaw gu ñuul ñakul dara waaw comme non lañ koy faral di waxe yendu bi neexna na ah fii jàmm gi lawna sawana bawana les derniers mots de cora parce que tamit bu ñu toge fi yaakaar ni kàddu yi du jeex du xaj déjà content nañ dal ce dernier mot lan lay don sama dernier mot lenn kase la may gëreum sama ñaari waajur xam nga njëkk sama papa yalla nako yalla xare aljana di gëreum sama yaay diko ñaanal moo xam ni mu bëgg yàlla na ko yàlla defar vraiment euh, di gërëm daal képp kuy mbooleem jullit rek waaw di gërëm ñëpp parce que surtout nag barñi gi ma dëkk xam nga ak Tëngéej barki Demba Ndiaye jour Korité dama woote Tëngéej Tëngéej ba ma fa fekkee ku te dire fa dëkk man sax la ma fa am ñoom amuñu ko peut-être kon donc lool rek doy na sant yàlla foofu ma woote Sénégal nit ñi dañ ma kon loolu rek peut-être loolu liggéey ak nit ñi la quoi. kon donc yàlla na jàmm yàgg di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaana lion yi ñu jël coupe bi xam nga Sénégal gën a naat neex jàmm am li may li may tëje nag. li tëjee. tëje tëjee rek sabar yi. ban ban sabar lay doon ci sabar yi li ngay tëgg nii. cool cool yi lay tëjee xam nga ne ne xam temps yi moom gars yi nag loo génn nag ñu sàcc xam nga ñoom bint njaay ñoom mereetu xam nga. Adja Cheikh sama rakk yi sama doom ñoom Roxoya ñoom Merem Merem Wage ñoom ñëpp maa leen di gërëm daal xam nga di gërëm tamit sama rakk yu groupe africain saba ñoom xale yi waaw. léegi léegi nag ñu nuyoo rek. ayca ñu nuyoo wala ñu tëj. tëjal rek ci lu mu la neexee noonu. ay ku si tàcc ma tàcc ma tàcc ma tàcc ma tàcc. je suis très content avec vous parce que tamit lii ngeen def nii dafa rëy. wax ko ci tubaab. Ah? wax ko ci tubaab. non non am na moo yoo xam ne ni moom dama seetlu ci tubaab mais di leen wax na nag yéen ca kaw ca kanam. te épée. ku si tàcc ma tàcc ma ma. foofu lañ koy daanalee di ko jaajëfal bu baax a baax moom suñu ndaanaan bi Kora Fall tey moom la ñu yendool fii nga xamante ne mooy Bargny kàddu yi rafet na macha allah seede yi jóge na fu nekk rafet na lool tabarfakala macha allah ma leen di naan euh, ndaanaan la ci biir goxam foofu lañ xewoon tey muy Bargny beneen yoon ci beneen ndaanaan ak ci yeneen émission tuuti njaay ngeen ci àndaloon ak sama caméraman Malick jaajëfal naa leen